di am yéene dellusi ci suñu durus yi ñuy amal àjjuma ju nekk di ci fàttali suñu bopp di ci fàttali mbokki jullit yi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu dégg ak topp suñu bind bi paase ñu ngi woon ci kan mooy mu kàllaf ñu waxoon ni mu kàllaf mooy koo nga xamante ni dafa nekk ku majeur am xel jot wooteeg yonent bi sallallahu alayhi wa kon kooku mooy mukallaf mooy ki nga xamante ni dañ koo togg jëf nga xam ni bu jëfee lañ ko sant am payal suñu boroom bu bàyyee lañ ko sant am mbugalum suñu boroom at tey sariya itam mu tegoon ko ci muy aqsaamul xukmu sariya mu doon juróomi atte moo xam atte yooyu benn mu nekk fard nekk loo nga xamante ni farata lay doon ci nit ki wala mu nekk sun na loo nga xamante ni bu ko defee am ci yool bu ko bàyyee itam deesu ko ci mbugal walla mu doon loo xamante ni dañ koo sip bàyyi am na yool ñàkk koo bàyyi amul mbugal wala mu doon lu araam bàyyi ko nekk loo nga xamante ni c'est obligatoire bu ko bàyyee am ci yool bu ko defee am ci mbugal wala mu nekk loo nga xamante ni mu baax la amul sawab amul iqaab kon loolu moo doonoon suñu bind bi nga xamante ni moom la ñu jeexal tey nag ñu bëgg commencé ci li ñuy wax ak darsul xaamis ci bunt bu ñuy wax ak toxaaratu muy làpp te ñëpp xam nañu ni làpp bunt bu am solo la ci diine ndax jaamu yàlla yi nga xamante ni ñoo gën a màgg ci diine julli lay doon te julli mëneesu koo def lu dul ni danga laab kon sa julli pour mu wér laab daf ci am solo loolu tax bunt bi amati solo mu commencé ñun ma maana at tahaaratu lan mooy laab at tahaaratu maanaha tahaara laab li muy tekki mooy an nazaafatu moo di set mooy set nit ki set ci yaramam set ci yéreem set ci place bi nga xamante ni moom lay taxaw di jaamu yàlla loolu la ñuy tudde tahaaratul xadas wa tahaaratul xabas mooy nga set ci sa bopp yow ci sa jëmm bu dee xabas nag mooy yére yi nga sol walla barab bi nga xamante ni fi nga nekk di jaamu yàlla loolu lay tekki ci luga waaye bu dee ci sariya nag al maqsuud biha lim ci jublu mooy al wuddu njàpp wal xoslu wala cangaay wa tayammum walla tiim wa izalatu najasa ak dindi sobe ci fan anil badani ci sa yaram sa yaram sobe bu ci am mu dañ wa sawbin ak yére yére yi nga xamante ni moom nga sol di jaamu yàlla sobe bu ci nekk mu dañ wa makkaanil musalla ak place bi nga xamante ni fi ngay jullee sobe bu ci nekk mu dañ wala nga toxu feneen laab googu nag dafa am ci lu muy amee wa tax sulu laab googu dina jege dina am ñu ngi koy mën a amee ci lan wa taxsilu tahaara laat googu ñu ngi koy mën a amee bil maa yi ci ndox al mutlax mooy ndox moo nga xamante ne ndox mu ñu boyal la ndox mu ñu tënkul ci dara bu ñu waxee ndoxum rek tënku na maa ul mutlax kon ndox moo nga xamante ni ndox mu set ndax ndox ci sariya dafa am ñetti ndox li ñuy wax almaa u tahur ak almaa u tahir ak almaa u najis ونوخي ماء الطهور والذي لم يتغير لونه ولا تعمه ولا رائحته بشيء مهم دخ موغا خامتيني خدك سوبيكول كولورم سوبيكول تفكام سوبيكول بوكو دافي موم ندخ موم لا ني مانا جابي امنا بنين ندخ بو ني واخ ماء طاهر موي ندخ موغا خامتيني لابنا سي بوبم مي مانتا لابل كينين almaau allazi taxayyara bi tahirin mooy boo nga xamante ne lu làpp mo ci dugg yu mel ni ñuy jëfandikoo comme ah, diw yi nga xamante ni ñu làpp la wala ay yu mel ni sunguf ak yu mel noonu ah, yi nga xamante ñu làpp la bu ci duggee moomu ndox mënees na koo jëfandikoo ci aadaat yi maanaam lu ñuy jëfandikoo waaye day su ko mën a ngir ngir jaamu yalla beneen ndox moom la ñuy wax maa un najis mooy ndox mu ndoxum sobe ndox mu am sobe mooy boo nga xamante ni xet ga wala couleur ga wala caf ga dafa soppeeku ci lu boo nga xamante ni sobe la bu boobaa ndox moom deesu ko jëfandikoo ci dara moo tax ma ni wa tax dina am il maa it ndox mu la mu mu moo nga xamante ni mu ñu boyal la allazi lam yataxayar soppeekuwul bi shay'in ci dara bi shay'in taahirin ci loo nga xamante ni lu laab la kal bu dee maa ut taahir mooy boo nga xamante ni dafa soppeeku lu mel ni soow zeyt wa zeyt ak diw ma ak ndoxu ak aw fleur aw najisin wala mu soppeeku ci loo nga xamante ni dafa nekk euh, sobe kal bawli comme saw wal xamri ak sàngara kon ñett ndox yooyu ñoo am benn bi rek moom la ci mën a mën a laabe mooy ndox moo nga xamante ni soppeekuwul dara moo xam li xam lu laab la moo xam lu ñàkk laab la mais dara dugg ci bu fekkente nag li ko soppi dafa doon làpp ndox moom duñ ko mën a jëfandikoo ngir jàpp bu fekkente ne li ko soppi dafa nekk sobe ndox moom duñ ko mën a jëfandikoo ci dara kon loolu mooy axsaamul miyaax ñu yëg si maanaam yi nga xamante ne moom la mën a jaare am ak làpp yi muy jëfandikoo ba mën am làpp gi ñu doon jàngale yi loolu la ñuy tuddee wasailu tahaara wasailu tahaara jëfandikaay yi nga xamante ni ci lañ mën a jaare am ak làpp mu ni arbaun ñeent la almaa u ndox te ndox ma ñu tënkoon sànq ci ndox mu laab mën a laabal keneen ak ak turaab wala suuf bi nga xamante ni dañ ciy tiim alxajaru wala xeer bi nga xamante ni mënees na cee mënees na cee tiim wala ak dabxu mooy der boo nga xamante ni dañ koo wulli bu boobaa itam daañu ci mën a jëfandikoo ngir euh, ngir ngir laab mooy ñeenti ñeenti xaaj yooyu ci lañu mën a jëfandikoo ngir laab am man naaru waaye lii ñuy wax safara wala taal fa hiya fi xayri sara muy sarian kon tew ko ci li nga xamante ni mën na ko jëfandikoo minal mu tahiraati ci li mën a laabalaate mu ni wa isa walaa bu xabee alkal bu xaj fi inaa in ci ndab fa innahu yuraaqu ndab loolee dañu koy tuur lam ci fekk wa yuxsalu des na raxas ndab loole sabu maraatin juróom-ñaari yoon waaxidan benn ba minha day ànd ak bi turaabi bi turaabin ci suuf kon xaj bu la bu xabee ci ndab dañ tuur la ca ndab la ba pare raxas ndab loolee juróom-ñaari yoon benn yoon ba ñu boole ko ak suuf ndax dafay am benn virus boo nga xamante ni moom la cay bàyyi loolu tax yonent bi salallaahu alayhi wa sallam digle loolu almarfu anhu min al najasaat yi nga xamante ni dañ koy jéggal euh, jaamu yàlla bi buy julli bu ko laalee nga xam ne du yàq julleem almarfu anhu ñuy jéggale bokk na ci ci min al najasaat ci sobe yooyu ñett almaytatu lati la yasiiru damuha mooy ndundat bi nga xamante ni dafa faatu te amul deret joo nga xamante ni dafay toq loolu bu la laalee ci sa biir julli wala bu taqee ci ci ci sa biir julli man loolu du yàq sa julli ndax ah, loolu jéggal nañ ko lu mel ni ay gunóor gunóor yi nga xamante ni xalilu dammi wala amul deret sax wala boo jëloon tey jii rey doo gis doo gis ci moom deret ndax amu ko wala tuuti lay am ci deret mu yooyu bu la taqee wala bu la laalee ci sa biir julli mu yooyu sobe la waaye dañ ñoo koy jéggal wal xiiqi ak koo nga xamante ni dafa amee góom boo nga xamante ni dafay génne dët mu ne jamono bi muy julli muy génne dët loolu dañ ko koy dañ ko koy jéggal yàqul tojul yàpp yàqul julleem wa tiini ak kuy julli lu mel ni ban laal la mu ni ban boo nga xamante ni dafa jaxasoo ak ndox nga xam ni mën na am sax ay sobe daf ci am mu ni loolu dañ koy jéggal wa maa u saaria ak ndox boo nga xamante ni dafa nekk ci bedd par exemple ngay julli ci wetu bedd mi benn oto daw jaar ci biir ndox mi ndox mi tis la amaana ndox moomee am na sobe mu ni yooyu malees na la ko jéggal wala yow ci sa bopp mu nga doon dox ndox tis laal sa yére nga dem war a julli maa gis nga ko wala gisoo ko mu ni yooyu dañ koy jéggal ndax lu tax xay su yansuru ak taxazur mi ndax loolu dafay jafe ci doomu aadama yi ñu di ko moytandiku ndax léegi léeg da ngay dox ci bedd ba yàgg sa euh, oto romb la rek surtout bu dee nawet duggee ji ndox ndox moomu tis laal sa yére moo xam nga xam ne am na sobe wala amu ko wala ngay sikki sàkk mu ne bu boobaa loolu nga xam ne man euh, nit ñi mënee su koo daw lool lool lool dañ la koy jéggal loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax naan diine dafa diine lu yomb la ku ko ku ko jéem a diisar rek mu sonal la ad diinu yusrun wala yusaddid ad diin ahad illa galabahu kon loolu moo nekk suñu Euh, bindu tay bi nga xamante ni doon nañ ci fàttali suñu bopp da ciy fàttali mbokk yi ñu dellu siwaat di balu ñëpp aq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla mboole ñu jëggal in uridu illa al islah ma stata'tu wa ma tawfiq illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh